bis ba ci Sénégal ndax waxtaan wi nga xam ne si tey moom la ñu indi assemblée nationale muy une loi portant amnistie nekk na mbir moo xam ne si mu rëy la moo xam ni mu solennel la mu am gravité bu mag li ko waral mooy li xew ci Sénégal deux mille vingt et ba léegi li xew ci Sénégal deux mille vingt et ba léegi nekk na lu nga xam ni si bàyyiwul kenn indifférent amul benn sénégalais bu xonetul ak foo mën ci toog ndax li xew mbedd mi di tàkk am ay kër yu ñu nag ay nit ñu dee at ñu jàpp ñu dul jeex ak ñu dee mu nekk situation boo xam ne sii ku ci nekk laal na la ku ci nekk naqarlu nga ko ak li mu jur lépp ci économie bi ak li mu jur yépp ci changer société sénégalaise jikko yi soppi ko fi famille yi am fi ay problème loolu yépp xew ci Sénégal la ca gën a garaaw mooy li nga xam ne si euh, su ma jëlee rek le discours de notre de député maire Bey je pense que c'est très poignant description bi mu def ci li xew ci biir njaboot yi maanaam li nekk ci prison yi et loolu nag bu xewee ba noppi may dégg yenn discours yi fi xew tey dafa may jaaxal ana yërmande sax boo ko doon convoqué tey danga naan bu benn xale xale fanaan ci prison yi bu ma ci amee occasion ana yërmande sax lay wax ba nga xam ne si da ngay dégg kuy taxaw naan wéy nañ leen fa bàyyi ba bu sama leader ñëwee falu génne ji leen c'est ça que de la politicienne donc kenn xoolatul yërmande amu ci benn kenn dawalul ci benn sentiment lu dul une situation des motivations électoralistes man ci parti sàngam laa bokk ñëpp tey dañu ñëw taxaw wax seen parti lii du affaire parti tey affaire réew mi ñu ngi waxee waxeeti exposé de motifs yi lu ñu ci wax ñawaat réew mi delloo réew mi ci jàmm jubalewaat réew mi loolu la la wax ñun nous avons participé au dialogue de février juillet bi président waxee ni dafa bëgg élection yii di ñëw ñëpp ñu nga xam ne si dindi woon nañ leen ci ñu boolewaat leen ci bañ fa demee wax ja yéegul parce que dañ doon wax participation inclusive kon Ousmane Sonko egsiwul woon parce que boobu yore encore des obstacles ñu duggaat ci lii mu ni ñu ni amnistie président ni ci euh, euh, ci euh, exposé des motifs yi ba tey il faut ñu fexe système boo xam ne ñu génne ñëpp ku amul woon say droit nga jot ko ba ñëpp mën a demaat ci des élections inclusives ana ñu fi doon wax élections inclusives ñun dañu def communiqué barki dem Karim ak président yëpp dañu bëgg doomu Sénégal yëpp ñu delloo leen seeni droit civique ñu dem ci réew ñu bokk dañu bëgg xale yi nekk ci prison yi génn te benn bis benn waxtu bu mu mën a doon ëpp na ci kon dañu war a def culture ak promotion de la paix promotion du pardon kenn mënu koo layal ba du jikko bi gën a màgg di gën a rëy ci li nit mën a def mooy mën a baale ñi nga xam ne si am na ñu ñuy ñàkk am na ndàmpaay mais ndàmpaay mënul dara ci ci ci ci ku fi jógee mënut a dëya ñu bëgg ndàmpaay nañ leen nguur gi laajal ndàmpaay ñi nga xam ne si seen i bagage dafa yàqu ñu génneel leen i bagage remplacer leen am na sax ku proposé woon ay fonds motivation ñu def ko pour loolu mën a am mais il est urgent que la classe politique la société civile ñëpp ñu mobiliser wu pour une culture de paix et de pardon au Sénégal lii mënut a wéy mënuñu duggaat ci beneen kenk beneen quinquennat ak beneen président yóbbaale fa coow yi yëpp coow yi na dakk na jeex ñu génne xale yi amnistier leen c'est pourquoi moi je le dis je le répète amul leneen culture de pardon